benn rabu géej la boo xam lool li muy jàppee nit ñi ci géej gi bis dafa am ay nappkat yu ñëw ba jege fi rab yu nekk ñu gis benn kees bu fees dell ak jamaa ak oor ñu ko gisee ñu am mbégte lool ñu lii de xéwal la daal di wàcc ngir jël kees googu bi ñu wàccee rabu fekk leen fi lekk leen am benn waay bu doon tukki naka la jege fi rab yu nekk mu gis mel ni benn gaal bu ndaw mu gis benn xale bu jigéen bu rafet nekk ci rafetaayu xale bu jigéen boobu moo ko poussé ci mu dem ci wetu gaal gi ngir ni day wax ak moom bi mu demee ba àgg ci wetu xale bu jigéen bi rab yu génn lekk ko beneen bis am benn meer boo xam ni dafa doon dem ngir seeti ak njabootam bi ma rombee fii rab yu nekk mu gis benn caq caq bu rafet lool bi mu ko séenee mu ne lii de su ma ko jëlee mën naa ci defaraat lu bari ci sama dund naka noonu mu continuer jëm si ci fi caq bi ne bi mu ñëwee bay bëgg agsi mu gis mu bisaar lool ci moom mu doy waar lool mu sikk sàkk xelam mayu ko mu jël lii ngir ni ma ko gisee muy fee ci ndox mi doy na waar lool ci moom mu ni wóorul de may risqué sama dund ndax ci am ndaxte samay trésor ñi ngi may xaar mooy sama njaboot kon waruma risqué sama dund ci loo xam ni bari na lu ma ko gënal naka noonu maire bi daal di continuer waaye mi ngi sikk sàkk ndax dafa war a dëpp jël ko wala déet bi mu ko xawee sodi tuuti mu gis rab yi génn bi rab génnee mu gis ko mu tiit ci la xame ni kon rab yi mooy teg fii loo xam ni nit ñi suñu ko gisee dañu koy xemmeem ba tax ñu koy jéem a jël su ko defee mu mën leen jàpp mbir bi daal di continuer ba àgg li ñu bëgg ñépp jàngee fii mooy soo amee yitt ju kawe maanaam bu amee benn bëgg-bëgg loo xam ni boo ko amee dootoo soxlaa di dara nga dox jëm ci bëgg-bëgg boobu. muy bànneex muy naqar muy lu rafet muy lu ñaaw bu la tara fakkastal ba yàqal la sa yoon ak lu mën a xew na nga def sa kem kàttan ba am nit ki booy bëgg dangay bëgg lu kawe te jëmu la nga am ko nga dox jëm ci loolu te boo nekkee ci yoon jot li nga bëgg loo gis ci sa yoon ak lu mu neex neex neex moo tax nga jàdd sa yoon ndax la nga bëgg bu dee mooy li nit ku baax war a bëgg soo ko amee la leen lu bëggati dala yomb moo tax nit ki warul sàkk lenn du ngërëmal yàlla ndaxte yàlla bu la gërëmee malaaka yi dañ lay gërëm di la sant ak di la tàgg waa kaw yëpp dañ lay gërëm di la sant ak di la tàgg loolu mooy mujj wàcc ci kaw suuf daj àdduna bépp ñëpp naw la di la sant ak a gërëm fu ne ñu di dafa tàgg moo tax nit ñu baax yi ñu du leen tudd fu ne di leen tàgg ak di leen ñaanal te bu ñuy dund ak bu ñu faatoo nit ñu baax ñi fu ñu toll ñu ngi tudd seeni tur ak donte faatu nañ bu yàgg waaye seen tur du mos a fay ci àdduna tous ñu ngi leen di tudd di leen ñaanal ak di leen tàgg ba faw ngir lan dañoo am ngërëmal seen borom kon ngërëmal yàlla mooy li mat a sàkku ñu ngi leen di jaajëfal vidéo bii lañ leen baax yi tey dina wax ngeen partagé ko booy di abonné wu ci seen bi insha allah ay vidéo yu am solo rek moom lañ leen fiy baax encore une fois ñu leen wax ngeen partage vidéo bi am commentaire da ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak Souhaibou TV